monsieur Seydi Sow ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Rewmi FM. mais maa ngi leen di fay. Mhm. di leen gërëm di leen sant di leen sargal yow ci sa bopp. Mhm. parce que yaa ngi def ay yu baax a baax yu rafet rafet ci biir wàllu. culture bi si suñu caada et eh, suñu aada ak suñu caada. loolu lu ñu war a war a gërëm la. Mhm. tey jii ñu sekk waxtaan bi jamono ji nga xam ne ñoo ngi waajal benn fan sax muy dimanche gi dibéer gi ñu fas ne door euh, lii di journée internationale de l'écrivain africain ñu koy màggal saa su nekk euh, ci mim réew muy Sénégal atum ren ñu bëggoon a xam lan mooy particularité euh, boobule manifestation. mais ñetti particularité yi ngi ci ñetti mhm. mandarga yu am solo yu am doole mu ngi ci mhm. mandarga bu jëkk bi mooy ci lu tax ñuy luy nekk suñu xalaat dëgg-dëgg ci biir euh, bés boobu dañoo tànn tey suñu xalaat dëgg-dëgg mooy ñu jëmale suñu gëstu ci mbirum téere bi nga xam ne ñu ngi nekk ci euh, ordinateur yi ñu ngi nekk ci smartphone yi da nga xam ne nekkuñu ci këyit dañ koy nekk ci dañ koy dañuy mel ni dañ koy tàppe mu nekk ci biir euh, ordinateur ak ak téléphone yi. Mm-hmm. loolu mooy suñu mooy mooy mandarga bu njëkk bi. Mm-hmm. mandarga bu ci tegu bi mooy ki nga xam ne kii ren la ñu tànn mu nekk suñu marraine mu nekk jigéen ju ju ju ju dayoom rëy ci biir euh, réew mi. Mm-hmm. ndaxte jigéen ju euh, bindkat bu mag la ñu koy wax Rahmatou Seck Samb te mu amoon raaya bu gën mag ci raayu bindkat yi ci biir Sénégal mhm. maanaam grand prix du président de la République du Sénégal moom la jagleel euh, euh, journée de l'écrivain ren mooy nekk suñu marraine mhm. ñu teg ci euh, pays invité de muy Rwanda xam nga Rwanda tey jii dafa nekk pays boo xam ne dañu war a sargal ñu koy sargal day mhm. ndaxte soo gisee fu mu jógee ak lu mu jànkante woon am na jamono yoo xam ne ñoom ci seen bopp dañu doon reyante di di xeex di reyante dem nañu ba tey ji am nañu lu dul pays mais am nañu lu weesu pays dañu am nation tey ji mhm. loolu ñu yaakaar ne pays boobu mel noonu war nañ ko mun a def invité d'honneur ñu mun ko seet ak moom xalaat ak moom sargal ko surtout xam tamit lan mooy littérature am. Mm-hmm. moo tax tey jii muy nekk pays invité d'honneur. Mm-hmm. lan moo tax ngeen jàpp ne tey ci wàllum thème bi lii di technologie wax ngeen ko waxtaanee lan ngeen ci seetlu. parce que dañu bañ africains yi tamit tardé ci mbir moomu. Mm-hmm. Euh, parce que tey jii livre papier bi tey jii. Euh, mu ngi wàññeeku lu baax a baax ci wetu livre lu ñuy wax livre numérique bi maanaam livre bi nga xam ne bi da koy jot ci sa biir téléphone rek nga jàng ko nga jàng ko ci sa wala nga jàng ci sa ordinateur wala nga jàng ko ci sa euh, ci sa ci sa ci sa iPad. Mm-hmm. donc livre boobu mu ngi jël mu ngi am solo te ñun éditeurs yi wala ñu réere mbir loolu. Mm-hmm. war nañu fexe seet nan lañ ci mun a duggee am ci doole mun a fexe ba suñu livre yi tamit. am makkaan dugg ci biir livre numérique bi. Mhm. te it livre numérique dafa am solo. ndaxte tey jii njàng bi am nañu ay ay ay ay suñu dañuy wax ne suñu jeunesse jàng te livre numérique yu ci bëri ñu ci téléphones yi ñu ngi ci smartphone yi. Mhm. te soo xoolee tamit livre numérique tamit njëg bi dafa dafa tuuti njëg bi bëriwul noonu. Mhm. fu kay di jaree ñaar fukk moom ñaar dërëm nga fay jar kon nga xam ne nit ki pour jot ko dafay am solo lu baax a baax. donc loolu moo tax ñu jël livre numérique boobu. Mhm. tey bu ngeen demee ba xool ne Sénégal war nañoo egg foofu ndax dafa da ngeen xam ne am na lu leen di xaar lu bëri ci wàllum euh, ut ay jumtuwaay ba mën a développer livre. waaw waaw xam nga xam nga mooy technologie bi technologie bi du la laaj jumtukaay yu bari hmm. soo amee xel ak xalaat rek di ci mën a génn sa bopp te am doon jumtukaay yu bëri soo xoolee livre numérique. Hmm. lu may laaj lu bëri soo soo amee lu ñuy wax euh, traitement ci wàllu PDF mun nga ko def ci ay jumtukaay ñuy wax ay étude wala ci yeneen jumtukaay yoo xam ne ay ay ay ay ay ay jàngkatu livre bi la. Mm-hmm. soo ko amee loolu te loolu ay ay ay logiciel la rek la. Mm-hmm. te loolu donc day nekk lu lu lu yomb la ci ci ci ci pour ñu am ko. Mm-hmm. te malgré lu mu yomb lomb li xool soo xoolee Afrique ba tey amaguñu plateforme buy. jublu ci livre numérique. Mm-hmm. nekk na loo xam ne retard boo xam ne warul warul tey ji livre numérique lay di nu mu boyee léegi ci ci Europe nu mu boyee ci Amérique nu mu boyee ci feneen ak feneen ñun Afrique ñu toog ba tey ji amuñu plateforme benn livre numérique moo fi am édition numérique moo fi am mooy Ninea. Mm-hmm. te dëgg-dëgg ñun euh, kontaan guñu ci Ninea. donc laaj ñun ñu amal suñu bopp suñu plateforme livre numérique mais loolu pour nga am ko il nga gëstu ko nga lu a pour xam nan ngeen demee ba am livre numérique. Hmm. loolu moo waral ñu ñu ñu tànn thème bi. vingt-neuvième édition ngeen koy màggal atum ren ci euh, Sénégal ci diiru ci ñaata ci ay fan euh, te euh, lan la ñu mën a xaar wala sax lan mooy am ci biir édition. xam nga OUA moo jagle woon benn fan ci novembre. Hmm. mooy juróom-ñaari fan ci novembre jagle ko. mboolem ñii di bind ci biir Afrique. mu hmm. nekk journée internationale de l'écrivain africain. Hmm. mais ñun dañoo yaakaar ne war nañ ko xëcc mu nekk ay fani fan. Hmm. xëcc ko ba mu nekk même ay ay ay euh, ay fan ay bés yoo xam ne ba juróomi fan ba ba ba lu ci ëpp pour mun a woo suñu ñaataango yu nekk ci yeneen euh, réew Afrique yi. ñu woo leen fii ñu daje fii. bu waxtaan ak ñoom. Mhm. seet nan la ñuy fexe ba mun a dëggoo ci li ñuy bind. Mhm. nañ la ñuy mun a wasaaree suñuy bind nan la ñu mun a weccante xalaat ci bind mi. Mhm. Euh, si dëgg la gaam ñoom ñëpp. ci pays africain am nañu journée écrivain africain mais ñun dañuy seet ci suñu ñaataango yooyu ñan ñoo ci mun a rëcc mun a ñëw Sénégal pour mun a bokk ak ñun ci euh, bànneex boobu ci fête boobu nga xam ne mooy feetu écrivain waxtaanee actualité tey euh, Sénégal am na ci wàllum euh, xalimaam euh, li nga xam ne ñu ngi koy tudd fu nekk muy prix gongoor gi nga xam ne jox nañ ko benn ndaw doom Sénégal waaye it beneen prix bi nga xam ne bu Boris Diop tudd nañ ko ci ci semaine bi li ni mel ñu dégg Sénégal ci kaw ci wàllum littérature nan nga ko jàngatee. mais lu am solo lu am solo lu ñu neex la lu ñu rafetlu la xam nga. Bougane Bougane Sarr séeréer la encore dañuy wax séeréer la <laughs> Senghor jàll na ci am am am académie uh-huh. séeréer bi ñëwati na encore jëlee ci concours dëgg la dañuy mais gàcce ngaalaama séeréer yi mm-hmm. gàcce ngaalaama mm-hmm. euh, mm-hmm. suñu euh, doom la suñu rakk la te yéene nañ ko lu ëpp loolu dañ koy tàccul sargal ko dëgg ndaxte ñaar yëf mooy tax ñu sargal ko d' abord làmmiñ bu muy bind bindu làmmiñam làmmiñ bu tubaab la. Mhm. dem xarañ ci làmmiñ tubaab yi ba ñoom ci seen bopp jël raay jox la ko loolu lu mot a sant yàlla la. Mhm. mais deuxième élément lu tax tamit ñu war ko sargal tamit mooy ci euh, ginnaaw euh, Afrique subsaharienne ci Afrique subsaharienne maanaam soo weesoo Afrique maghrébienne mhm. ñun rek ñoo njëkk jël. Goncourt. Mhm. ci biir ñi bindkatu africain yëpp ñu ñuul ñi. jëkk mhm. jël Goncourt loolu sant yàlla la. tu as te ñooy nekk troisième ñu jël Goncourt ci biir Afrique. Mhm. ginnaaw Tar Bengelloune ginnaaw René Maran ñun ñoo ci troisième ñu jël Goncourt loolu am solo te Goncourt raay la bu am solo ci français yi ci tubaab yi. raay la moo gën a ëpp ci raay yëpp ñu joxe yi Goncourt ñëpp a koy yóotu Goncourt. nu ñu yootee Nobel nu ñu yootoo ni Nobel noonu ñu yootoo Goncourt mhm. donc su sa sa doomu ndey amee amee loolu sa ki nga bokkal réew su ko amee mhm. da nga koy sargal félicité ko ñaanal ko yàlla loolu jikko mu dem ci kanam ak kam mhm. kanam loolu rek lañ ko mën a ñaanal jëm ci Boris euh, Boris ñëpp ràññee nañu Boris dëgg la Boris euh, euh, bindkat bu mag la boo xam ne macha allah ku ñu ràññee ci ci ci mbir mi. Hmm. Euh, euh, su amee loolu du ñu bett. Boris yéene nañ ko sax sax lu ëpp loolu te xam nañu ne dina am lu ëpp loolu. Mm-hmm. gis ak euh, muuram bi le livre des morts amoon na déjà raay bu gën a mag ci raay africain yi mooy le grand prix de d' Afrique amoon na ko ci muuram muuram bi le le livre des morts. Hmm. donc nit ku xarañ ci mbind. macha allah yi jàng nañ ko fu nekk. mais du Boris rek euh, Souleymane Bassir Diagne ngi fii le grand philosophe hmm. le fagot de la mémoire euh, hmm. am na euh, raaya tamit bu am solo tamit ci raaya yi tamit hmm, lii war na rek ne suñu littérature suñu bind am na doole suñu bind nekk loo xam ne lu ñu ràññale ci biir àddina bi ñëpp ngi koy tàccu tu vois nekk neneen parce que ci dëkku Senghor dëkku Sembène Ousmane Mariama Ba Euh, dëkku euh, Cheikh Hamidou Kane ñoo ñëpp dañuy dëkkul Amadou Lamine sal donc waruñu mën a bind loo xam ne du baax du neex donc lépp lu ñu bind day nekk loo xam ne lu ñu ñu sargal la dañ koy sant yàlla di ko sant nag suñu maam yu rafet yoo xam ne ñoo ñu teg ci yoon bu baax bi suñu waajur yi ñu jox ci yoon bu baax bi parce que seen ngërëm ak seen seen seen seen seen seen ñaan moo moo moo jur li di ñaanal yàlla euh, suñu culture ak suñu littérature gën a dem ci kanam. ndax jàppoo ne distinction yi war naa tax ñu gën a dooleel secteur yooyu la. waaw waaw ñu ngi xaar ba tey ñu ngi xaar ba tey président la république ñu ngi koy sargal bu baax a baax parce que président de la république fàttewul culture. Euh, ci wàllu ministère la culture ñu ngi koy sargal moom it ak di gën a sargal tamit ki nga xam ne koy mooy Ibrahima Lo ndaxte ci fondé à l' édition mu ngi ciy def lu gën a baax a baax ñu ngi xaar nag. pour que fonds d'aide à l'édition boobu mun a yëkkateeku dem ba ci deux milliards parce que dafa nekkoon loo xam ne moom la président euh, de la république moom la ñu promettoon ñu ngi koy xaar ba léegi parce que eggee foofu rek dictature day gën a bolle day gën dem ci kanam gis ngeen tey ji ñu bëri ngi bind xale yaa ngi bind mag ñaa ngi bind politique ñu nekk ñi ci wàllu politique bi ñu ngi bind loolu loolu dañ koy sant yàlla. monsieur Seydi Sow ñu lay jaajëfal bu baax a baax.